Bismillahirrahmanirrahim. La awla wa la quwata illa bilal alayhisim. Assalamu alaikum warahmatullah. Ini nuy mbolom fi tew mepp. Yen jotali ndigal yu bayiko ci kilifi jëm ci ci yeen. Ci ndigal lu mag lu tedd li ñi xey jaaroon suñ Moussa muy dox baag si ci sëñ Ahmadou Mokhtar yal na fi yàgg te wér ak njaboot gi ak taalib bi yëpp ñu ngi sant baax a baax di leen jaajëfal ci coono yi di ci gërëm di ñaan ci yàlla ak sëriñ ak jëm sëñ Moussa mi tax ñuy def yàlla fay defal leen ci lu koy seen jort kenn ku ne la la fi indi ak lu ne ci yow muy la mën doon te jaaxal la yal na ko yàlla ak Sëñ saafaral ak Sëñ Musaa ci barke bis bu màgg bi bii nu ne ak bis bu tedd bii nu jëm lépp lu ci waay bëgg na ko ci fas bu dee wér yal na ko yàlla wéral bu dee ñàkk yal na ko yàlla eh, eh, jox amam lu loolu lu ne ci nit lu ne te te bëgg mu dañ yal na ko yàlla ak Sëñ sa teggil te ni fas yéene góorgóorlu ci bi ak ndigal santan nañ leen bu baax a baax gërëm nañ leen baax a baax liñ leen doon bàyyi lépp def ngeen ko defee ko ko koy suñ jort ci barke sëñ bi kon sëñ baa ngi leen ci jaajëfal di leen ci sant di leen ci gërëm te di leen ci ñaanal ngeen dajee te tawfeexi sëriñ bi yàlla mi nga ne moo am lépp te man lépp te tëliwu dara yàlla noonu euh, euh, may wér guddal sunu fon yokk sunu wërsëg sax na ci ndigalu sëriñ bi te moyoon ko nag li muy tere ndax xamuñu fo dara ne dañuy làmbatu rek lii nag lu ko waay di xeebit xam nga li li la ci li nga ci am ak li dikkal xamoo ko sax ndax weesu na sunu juddu ndax ci sëñ Moussa saal tàmbale woon maal gi ñu njëkkoon a woote ci mbale mi mu di def ab garaaw ab daraam la laloon di bub di ca def sotti ba ca looleen léeg moom la dox di ci barkeelu ba suñ jon tey jii kon nag noo a ñaan ci barke borom euh, dëkk bi ak barke ki sax ñuy woote ak ki nu fi dajale yal nañu ko yàlla teewloo déwén yu bëree bare bëri te mu ànd ak wér ànd ak jàmm ànd ak xéewal ànd ak wér yàlla mën na ko am na ko yàlla na nu ko defal def na ci kawal suñu jot. nanu fas yéene góorgóorlu bu baax a baax ci ndigal yi rek fu sëriñ bi soxlaa nan fas yéene laf suñu yitte te fa yéene takk ndigg te fas yéene dem ba la muy lu noppi bu bu baax a baax ci la sun lépp ne. nit ki nag du xeeb dara ndax xamuñu fa dara ne loolu tuut tuut rek bu ñu sëñ bi xasee ne acc rek nañ daal jóg te fas yéene la muy lu nu fas yéene koo def bu baax a baax te fas yéene góorgóorlu ci ndigal te may ni ko tere te ku waay tànne lu waay tànne sa morom dimbali la ci dimbali ko ci ko sa morom tooñ nga jéggal ko lu sa yoon nekkul nga maanu ci bu ko defee rek daal noppalu noppal suñu kilifa eh, eh, ci lépp sant nañ ñëpp gërëm nañ ñëpp lépp ngi jaare ci nag ndigal sëriñ Cheikh mais nga xamne mom la serigne ahmadou tegg liggey bi ak yëyu ci loxom ñu sant na ñëpp gërëm ñi ñëpp tambalé ko ci ñem ko angal andal di conseiller ak ñi top ci ñom ak jëwriñ yi yëpp fep way joggé ak fu mën doon te déggoon digal li tam cax jog jóg ñoo ñaan ci baxu serigne bi nga dajé ci tawfiq serigne bi waaw la nga ci bëgg lepp yalla na ci yalla serigne bi ak serigne bi defal ci barke serigne Tuubaa barke serigne Daaru Rasan barke am Cheikh barku barke sëriñ Ousmane jërë jëf آمين آمين آمين